di la sant di la gërëm di nuyu encore une fois toute la population sénégalaise su taxawaay bu rafet bu nga xam ni ki koy taxaw si li nga xam ni mooy yorinu réew bi di la sant di la gërëm di gërëm ñëpp jërëjëf euh, président Macky yab ngeen Afrique ngeen yow yéen da ngeen waa Afrique nag dem ba France xale bu ndaw di leen yabale naan leen rek leen nii loo ko teg. xale bi tuuti na waaye dëkkam tuutiwul mbir mi du tuuti si dëkk yi la. Macron tey fi mu toogee yaa ngi nii tey ku la ma Cheikh mag. <laughs> wala magu la magoo ko. loolu lépp bu ci dugg. bu ne la bu ne la taxawal na jaaral na la nga jaar noonu. déedéet pour la ko neexee mu convoqué la yu na la loolu nag laa bëgg na na ko def waaw ma ne ko neexee mu convoqué kon nag da ngay wuy ji voilà bu la woowee nga wuy si c'est que dama la bëgg a wax kon yow ça veut dire kon Macron mooy sa patron waaw Macron mooy sunu kilifa patron ah mooy sunu kilifa kon yow gouverneur nga bu ko waxul lu question ay gouverneur je le président de la République du Sénégal mais hmm. le Sénégal est colonisé par la France France tey port bi ku ko fi defar France hmm. moo fi defar port bi aéroport bii kan moo ko defar France. pour ay pour ay eh, France kon dëkk bi hmm? sunu kaaraange sunu sécurité ku ko yor dëggantaan jaay. France France. yow waay. kon ñun daal ay français lañu. doo français. sénégalais nga. sunu économie mais nag économie bi. français moo ko yor. Hmm. di société yëpp ce sont des sociétés françaises. nga ne la yow Amar. alors dëgg donc il fallait que nga nga nga xam loolu. kon nag bu ñu kilifa gi woowee dañuy dem wuyu ji ko. lu mu wax ngeen di ngongo. mais du question gongo man. am na wax waxu kii wax naa fa waxu gëree wala. yow ban gëree waaw waxu gëree ban nga fa wax. Euh, waaw wax naa fa waxu gëree. waxu gëree lan la wax Omar. waaw non quand kii day suivre actualité yow suivre dara ak sa muso. one question xam nga sa bopp quand même balañ lay wax sa bopp nag. lan léegi. alors jëngu na kay jëngu kay dama doon jëngu waaja. yow ah. jëngu boo xam te lu mu wax. jëngu waaja lu mu affaire pikir dafa wax. <laughs> maa gi jégalu gaa non gaa yi xam rek gaa yi. non non gaa yee ma noonu. nan nga noonu nga waxee. est-ce que waxoo yow est-ce sax président. soxna si may ma. may ma wan. <laughs> yaa ngi dëgg. yow xam nga amataw question. dama ne la yow yow benn yow la nga wax loo xam ne guerrier guerrier guerrier waxuma see nga fa wax. am na. waaw léegi président xam nga bu ma jógee nag France nag. bu jógee nag France yow lan la la Ablaye Bathily def lan la la Ablaye Bathily def. waaw pourtant lu leen ak jàppale na na ci. ba tax na lu ngeen bañoon moom nangu na ko ngeen jël ko bëgg koo def la bon lii tey yow lan la la def. man lu ma def defu ma dara Abdoulaye Bathily man waxuma ko dara li mooy wane ni kon xamul loolu xam ah, waaw jërëjëf wan man waxuma ko dara yow da nga bàyyi cadre yow da nga bàyyi da nga da nga da nga naan nag monsieur le président xam nga damaa bëgg sax sonn nag te woon question yi dama lay pose sama question ngeen may tontu ndax lu ma bëgg wax nag maa ngi koy wax nag dee ma tontu waaw kay wan laaj naa la question na la leen Bathily wax kon tontu ma ni mu ko formulé ni mu ko formulé man ak Bathily jotewuñu dara dama wu ma mais naan ma am na sa ñooñ muy ñoom booy mooy ñoom. ci nga bokk ndax lu ñoom lu ñu dégg ci yow ñoom lu ñu dégg ci yow. waaw ñooy naar bu ndaw ñooñu. waaw naar bu ndaw kay lu ñu dégg. waaw naar bu ndaw mais bii naar bu mag bi waxul yu ndaw yi ñoo wax. yow yaa wax yow yaa wax. ñoo wax pour lu ma neex. yow yaa wax. yéen dafa am loo xam ne dafa am ñoo xam ne dañuy xalam pour bëgg ma neexal. ku ñu mel ni Diouf Sarr ab Abdou Mbow. parce que dama leen a defal teraanga nag Abdou mbaw wax dëgg fa yàlla sonnoon na ba Allah taan may jot si nguur gi teraanga yi ma ko defal donc bu gisee nit wax si man il fallait que mu am nu mu comportement wala déedéet wan il faut que nga comprendre mbir yi parce que yow sa invitation dafa neex ñëpp dañ lay waxtaanee pale ba benn question nga yor. Ah, dóor ko kon yéen ak may yow la ñuy waxtaane kon man bës la. day def bës. xam nga mais li ba li wax yow la sa xalaat lañu ci bëgg mooy. boo defoon nag taxaw ci ndaw ñi. xam nga yaa di ko tontu li amoon mars lu raw mën na amaat Sénégal. ala bàcc li mu wax dafa alerté. loolu borom xel yëpp dégg nañ ko man dégg naa ko. Hmm. parce que wax naa xale yi ne leen déglu naa leen te dégg naa leen moo tax may doxal doxal li nii donc nag les autres ñi nga xam ni tontu nañ ko ñooñu bi affaire yi tàngee Diouf Sarr gi dégg ñu tontu ñoom ñëpp ñu ngi doon yoxosu donc man xam naa sama bopp nag. Hmm. xam naa li ma bëgg. dëgg la mais wan Macron sax nee na daf la bëgg a invité. pour nga laaj ko question parce que yow. nee na yow yaay def buzz. parce que vraiment yow moom. bonne question wan. merci beaucoup jërëjëf wan. jërëjëf merci beaucoup monsieur le président jërëjëf wan question. Sall Ngale euh, mu nekkoon ki nga xam ne rek euh, moom moo di président Macky Sall Sall Ngalamtu Arwar Bourguédé ci nuyu ñëpp ñi nga xam ne rek. Euh, ñu nuyu waa Tchad. Hmm? bonjour les Tchadiens je vous adore. ah ko waxee. leer na ñu ah, ah. ah les Tchadiens ah, je vous adore. ah a jeex. ah les Tchadiens. kuy toogaat. nen na yaayam le nen yaayam kuy toogaat. eh ma ñëw ah. <laughs> mun naa defal gërëm maître ma dikkee. mais xeelu de ma. waaw nang baalo. ndi xale bi di bañ dal na ma. Mm. xeewi. Pawlish. Eh. xeewi naa. wallaay li xale bi di parce que toog si seen plateau bi ay semaine ay weer duma fi ñëw xewi naa mhm. waaye du man dong parce que damay toog du ma gis sama bopp jékki-jékki gisuma maître danaa juuf ma ne way xeewee nan dëgg la croix de moom moo ñu tane moo ñu tane mi ngi yëngu ah, de laa ko mujjee gis <laughs> tiktok tiktok TikTok laa ko mu mujjee gis mu ubbi compte TikTok ne ma ma dikk ñëwal ci TikTok gi ma ne ko déedéet. mënu ma def si TikTok gi. émission bi di ngeen ko dugal YouTube. daf ah, lay dugg waaw ah, dee leen ku dugal. si eh, xanaa yëgoo ne waa Tchad sax ñu ñuy seetaan ñun allah télé baa ngi toj. waaye gis nga benn plateau invité wu ma ci koor gi. Mm-hmm. waaw. ah loolu de bi ngeen ne fi salon d'honneur pour man. homme d'honneur yi laa jëlu leen ma. sa kër la sama kër la. si Lamine sama wóol la leen. Mm-hmm. dee leen ma invité. yaa ngi waajal anniversaire président ma euh, maître bi. sama yoon newul si xaw ma ban bés la judd ak kañ lañ ko war a saagal sama yoon newul si Ablaye Wade moom ma ba ma bakka nit ki bu la bawee danga ko ba banaaka seqatuma ak moom dara déedéet mooma ba dafa génn fii ma abal ko sama kër jox ko ko ay nu koy defal teraanga lu ne ma koy defal yow mu xëy xëy doomam lu ne daj naa ko si pour mu génn si prison bi. Mhm. ba bi muy génn maako gunge Adja Khoudia yàkkal ko fiiriir ñu dugal ko ko si avion bi mu dem ak moom. doomam fiiriir ba boole ko mayonnaise bu neex waaw mayonnaise bu neex macha allah kii xam na démb. yow danga nga fekk démb. fekk tey loolu yëpp nag tey Ablaye Wade xëy ba ma ma baka nit ki bu la bawee danga nga koy ba. dëgg la. parce que nag loolu may dem man ndax ndax pire la waaye sa papa la de ndax ndax pire la waaw euh, waaye nu jógee ci loolu yoo xam nga dangaa neutre nag dangaa tuddee ñaaxaan naay wallaay ñu bàyyi la ci dara mais ñu jël li nga xam ne rek moom moo di kàddu sëñ euh, sëriñ bi euh, ci li nga xam ne moo diggante Sonko mm. ak maître ak ki nga xam ne rek moo di président Macky ñu di ko yàlla yàlla yow mi nga xam dangaa neutre te toogoon ci lan la leen sëriñ bi wax ban génn ko di ko politiser ni ñoo ko génne Euh, waa waa ñi nga xam rek moom moo di Sonko yi. ak euh, APR. waa soxna si comme damaa neutre <laughs> nga ne ku neutre nga si neutre googu laa bëgg a des <laughs> continuer di neutre ndax rek ndaxte maandu si la lépp xaj su ma waxee jëm nii <laughs> waa Sonko daggal su ma demee nee. waa APR daggal balaa nu may daggal nag ginnaaw neutre gi maa ngi si kii bu ma xamoon ni lii nga may woowee du ma ñëw ah. parce que soo invité nit ki mu nekk un patrimoine national nga xam ne nëpp dana ko seetaat ñëpp dana kaa bàyyi xel je pense que li la wax mooy nga laaj ma laaj yoo xam ne ce sont des questions d'actualité. Mm-hmm. des questions précises. lii doo ci wax. du ma si wax lu tax ma si wax yow lu la si teree wax yow. man lu tax ma si wax. waaw man nga bëgg ma see wax la yow ba nit ñëpp xam ah ma daan politique ba sëñ Mountakha ne ma baal ma ba. doo yow bàyyi nga est-ce que bàyyi nga. bàyyi naa wax bëgg kenn du commenter kenn euh, léegi fichier électoral bi nga xam ne opposition bi ñu ngi koy ñaaw laaj ko politiciens yi man man politique man ba nga naan man li ma si am mooy bés ba jot ma dem wote ji man du ma politicien bay lijjanti fichier di ko nekk ma nekkuma nekk ma pouvoir nee naa la société civile wan yaa ngi tey mais mais mais mais ministre affaires étrangères dafa jooy. rek dama la déglu Masaalikul Jinaan bi si julli bi. nga fëgg taabal ji. Oh. nan nañ tee loxo pale Israël. wallaay wallaay te yow boo fi nekkoon xam naa ni loolu ngay wax. Oh. président dafa nekk te mu bàyyi politique doo ci wax de. Oh. doo ci waroo cee tontu. dafa jooyee dafa la mbirum jullit bi nga discuter. ah ah déedéet ci Palestine Israël. man dama namaat nga ñëwaat. fu mu jëm fu mu eh, jëm. affaire étrangère fëgg taaba gi la jën nan nan arrêté. jërëjëf defuñu président Macky du lenn. voilà président Macky Sall dal ci kaw réew yu mag yi dafa dal ci kaw réew yu mag yëpp. wallaahi yow dama ne. te Macky bi mu ñëwee xolal. faraay rek jàll dama ne. jooy nga ma waaye jooy naa si Lamine. ndeysaan parce que sama wóllare moomu. tey na journal yu ko bind sax. journal yépp daanu ko bind parce que mm. sur Lamine bu fi nekkoon tey wala ma nekkoon fa tey ci poste bi kii wax nii muy ministère des affaires étrangères dama yéegaloon baar bi ba si kaw kii ñëw ba ci après ci la ñuy ñëw di wàcc baar bi wàcc na loolu bi lay wax nga dëgg wàcc na loolu bi wàcc Amadou Ba wàcc gën ko wàcc Amadou Ba Aïssata Tall Aïssata baar baa ngi si suuf dem baar bi bi ma fay jóge dama ne maa ngi jóge si fii si affaires étrangères boobu maa ngi def ak passation de service man ak ki nga xam ne mooy ABC ma ne ko xoolal baar baa nga ne la sa kaw ba nga fa nekkee waaye maa ngi dem bàyyi la fi ngal la bu mu wàcc mu ne ma du wàcc dëgg la ABC jóge fa ñu dugal manqueur manqueur watte <laughs> eh! ABC moo ko njëkk a wàcce manqueur gën na ñëw wàcce ko. léegi après ba baar bi yem manqueur si ndigg manqueur bi muy génn jox ko Amadou Ba. Amadou ne ko baar baa ngi nii ci sama. léegi Amadou Ba def ko la ko bàyyi woon. Amadou Ba ne ko danaa ko yëkkati. indi ko ci jeune wàcce ko ci oomam. waaw Aïssata Tall dëggati ko. <laughs> baar bi wàcc na affaire étrangère zéro zéro. pour Macky Sall nag bu fekkente ne dafa bëggaat relation di dox entre. mu jël la yeeg yooyu. ne du ma ne mu jël ma. ah ak kay. waaye xel yi noo ko xalaat ni ko kii xalaat. mais yow Sénégalais yi xalaat man dama ne jël leen waaye sénégalais yee ko wax. mais sëñ Mountakha nee na nga bàyyi politique. mais ministère boobu ma bàyyi liggéey ma bàyyi liggéey ci gouvernement bi ministère ah. daaw ko yor sax léegi rek lan koy jox ab politicien mais politicien daaw yow xam nga yow sa maam Biriñ Taal Mbaay lekkatu di bi xam nga yow sa yow yow yow xamoo dara ci politique madame temps yàlla na la YouTube bi jàppaat ba bala <laughs> topp naan temps bi jeex na temps bi jeex na yow am na youtubeur yaa ngi sa bopp. yemale la xam ne neex moo tax. Ah, waaw gis nga ma dikkee donc eh, the best of ak waa Fera a eh, dëgg la ala jërëjëf mu nekkoon maître Madické Niang yaakaar naa dégg na li nga xam ne rek moo di ay kàddoom donc di leen jox rendez-vous euh, lundi incha allah bi euh, dimanche nag jomet dina ñëwaat incha allah daal di tuddaat dëkk bi comme ni mu ko daan defee kon ñu joxe lépp. ayca merci beaucoup.